mbokki internautes yi dal leen ak jàmm Madiama Diagne Souleymane Teliko xam ngeen ko ñu am ab contentieux ak wàllum justice bu Sénégal ginnaaw nag ab nag diffamation boo xam ne Souleymane Teliko dafa jàpp ne Madiama Diagne dafa bëgg yàq deram bile moo tax mu daal di jël lii daal di koy teg ci euh, ndoddam li daal di xam leen ni rek ne ki nga xam ne mooy Souleymane Teliko ci euh, jamono ja ñu war a àtte kii di Hissène Habré nag nekkoon président bu Tchad te ñu ko doon nag juillet euh, ci chambres wàllum nag euh, crime contre l'humanité moom mi nga xamante ni nag moom mooy Madiambal Diagne ca jamono jooju defoon ci ab édito di le ni nag ne Souleymane Teliko ci boppam li muy wane ak li mu doon nag ça fait deux ndax fu mu toll nii euh, mi ngi wan au monde entier moom nag ak magistrat la boo xamante ni nag euh, magistrat boo xamante ni amul dara loo xam dañ ko koy reproché exempt de reproche la loolee la daal di nag wax ndekete yo moom mi nag ab nit koo xamante ne ak njublang la ndax Demba Diagne bindoon lii lépp daal di ne kii di Souleymane Téliko nee na ab njuuj njaaj ak yenn ci yoo xamante ni baaxul la gis ci suñu magistrature bi moo tax mu daal di démissionné foofee ca barreau bu Ndakaaru moom mi nga xamante ni mooy président UMS de Union des magistrats du Sénégal Madiambal Diagne taqal ko ne euh, ci nag mission yi mu amoon ca ba ñuy jugé Hissène Habré nag ca Tchad ginnaaw Union africaine mi nga xam ne dañ ko daal di joxoon ay frais de mission yoo xam ne tol na ci ay millions ci suñuy koppar euh, moom Sénégal daf ko daal di jébbaloon frais de mission lépp mu boole ko ni ko foofu lekk te loolee nag ba tey remboursé ko moom Souleymane Téliko nag lu ni mel woon ko mu daal di porter plainte daal di koy nag servir benn citation directe ci wàllum diffamation ci liggéeyam en tant que journaliste moom Madiambal Diagne Madiambal Diagne nag ci seen àtte bi nga xamante ni nag démb la ñu a procès nag kii nga xamante ni moom mooy Souleymane Téliko mi nga xam ne amoon na une vingtaine d'avocats boo xamante nga xamante ni nag mooy Madiambal Diagne nga xamante ni avocat am di Etienne Ndion nag daal dinay sax bëgg a dédouaner kii di journaliste bi di Madiambal Diagne nekk directeur de publication bu quotidien le quotidien euh, mi daal di wax ne client wam nag li mu def du lenn lu dul c'est un lapsus noonu la ko Etienne nekk avocat bu Madiambal Diagne daal di waxee ci jamono jooju euh, pool d'avocat bi nga xam ne ñoom ñooy daal di nag euh, plaidel kii di Souleymane Teliko ne lu nu mel mënuta am def ca édito wam di ko publier en plus li mu bëggoon mooy ternir image yu seen client bi di Souleymane Téliko rawatina gàkkal naka deram ba nga xam ne dootul setati ci euh, Sénégal euh, gi lee rawatina si àddina wërngal këpp ci euh, koo xamante ne ku honnête la moo tax naka ñoom ñi nga xam ne ñoo fare ci défense bi nekk naka Madiamba Diagne ak avocat am daal di jàpp ne rek lii dañ ko war a daal di annuler muy procédure bi lépp ca jamono jooju itam avocat yi nga xam ñooy défendre ki nga xam ne mooy Souleymane Téliko nee nañu ñoom nañu euh, daal di nag euh, condamné ki nga xam ne mooy Madiambal Diagne ba noppi ñoom ñu ngi sàkku ngir juge bi daal di koy teg daan lu toll ci cinq cent millions euh, de francs ngir dommage ak intérêt ndax nag dañoo bëggoon yàq deru Souleymane Teliko juge ba moom procureur moom itam daal di nag ne ci réquisitoire am nañ leen daal di nag def li nga xam ne moom la loi daal di santaane ak lum ci mën ci doon nag fu mu toll ni verdict bi ñu ngi koy xaar 17 juin bi nga xamante ni moom la ñu daal di jëm Souleymane Teliko ak